فزت بزار في الأزال سيدة لم يدرك bës takkal ko maam jaara mi ma gis bu sëbbaali jigéen jëmi yoonu aras moo tiim jigéenu xërnu bi wursu sellaa dina takkal ko maam jaara bu samata poroxaan jigéen ji tiim jigéen jëmin yoonu aras moo tiim jigéenu xërnu bi maam jaara wursu sellaay nas takkal ko man jaara ma gis jigéen jamiin yoonu aras moo tiim jigéenu xarnu bi mooy yaay xaadimul xadim bigil na yàlla may karim buso yow wa jaara laa yariime du jeex ay busa jàngal nga maayu xarnu bi moo yaay xaadimul xadim bigil na yàlla may karim iwam wa maam jaara laayareem du jeex jàngal na xarnu bi xaral na gaal tàngal kafe moo tax armuwaal du leen jafe moo tax ñëpp abu dikk fii jaara sigil na jaara xarnu bee yaara bi du juddu yaa gorte yaa ami may maam jaara bargil gi si li cosaan ya ca makka ak soror ya ca madina baytil muqaddas ana tuuba minallahi sëb liggéey tëx ba doom wala fi denc ay million te seeni maam mësu ko gis maam yaa rafetu dudd maam maam jaara maam jaara yaa dis gor barkeel nga sili cosaan maam jaaratu laay jigéen ñi war nañu laaroy di xëñ sa ci lu wér tey xëñ sa jikku ya ndax ñu jaaratu laay waa mulku malakut ak pii arasiya Cheikh Bamba lañ maam jaaratu laay way naa sa tëm bi ñu naan Cheikh Jiili wuy way leen leen ma si xëbdu xaadar ma ca baxdaat xirewlu leen ma dellu marsiyaal si xëbdu xaadar barul loom la saayibul ayaal jamiana min al niiraani وقد سمعنا إلى الجنان أنت الذي تنجي سويت حياتي فضلا فأغرنا من الوسات التي هبلت وبمن تهلق بي وبي أمتي زدني ارتقاء لين قلوبنا إلى الإسلام والانتخابة بلا انبسام لست أفرد إلى خير الجليل أمري وما أفعل بي فهو الجميل والذي لا أرتجي نفعا ولا أقاف درا من سواه مسجلايا بي بسير وكفاني الوكيل ولا سمعيس لغيره الأمين شدور قوم يسرئا لدينه ونور والإسلام كلين يجي جميع سبتي لليسرى رولي سبت السياب أبدا فزت بزار في الأزانة سيدنا jërëjëf